asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum les auditeurs et les auditrices ñi nga xamante ñu ñuy baye xel fune à travers les 14 régions du Sénégal ñi nuyu euh, kilifa kër gi di nuyu aussi la directrice ak aussi ñi nga xamante ñu ci lalu hôpital ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaan wérgu yaram di ñaanal aussi ñi nga xamanteni ñu ngi dans les eh, milieux carcérales vraiment ñu am liberté totale ba nga xamante ni dinañ mën a delluwaat ci seen jabot bu baax a baax vraiment di nuyu aussi personnel bi nga xamanteni mom lañ fi fekk moy le personnel qui eh, de Safina FM et fii nii ci Urbam et di nuyu aussi eh, vraiment ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi boo boo kaddu gi mën a jotee et à savoir les techniciens ñi am mbégte ak contentement tey aussi ñëwaat comme d'habitude ñi nga xamante ni noonu lañ ko doon defee sur l'émission Takkusaanu réew mi et tous les samedis à partir de 17h 18h tey ñu am benn invité bu ma euh, euh, de marque bu nga xamante ne mu ngi wuyu ci turu Khadim Sen et Khadim Sène doon benn ingénieur en développement territorial moom lañ invité tey fas yéene eh, waxtaane benn thème bu am solo bi nga ne ngi wax ci et eh, eh, tembi bi nag li nga entrepreneuriat favorable face au au des jeunes loolu noonu doon benn am solo et kon su nous defee Khadim ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum euh, Ibrahima maa ngi lay nuyu di ziar euh, aussi waa Safina FM personnel bi le technicien di nuyu aussi euh, les les auditeurs maa ngi nuyu aussi euh, sama waa dëkk waa Bambey notamment son papa sama yaay maa ngi nuyu également ma femme madame Sen, ak euh, ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi ñuy déglu ci émission bi voilà comme euh, Ibrahima laa di man naa ngi tudd Khadim je suis ingénieur en développement territorial C'est jii ñu euh, pour partager euh, avec beaucoup d'auditeurs yi suñu xam-xam jëm ci entrepreneuriat. merci beaucoup merci beaucoup Khadim Sen. ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la dalal jàmm

Koumpentoum yep wa ñaani tukulóor ñu ngi leen di nuyu baax à travers les 36 villages yi nga xamanté ñoo ñoo fa né village 9 village 8 village 10 Diamaguène Sine Falansine sare babu sare Fali ak euh, kahaw Lama yep ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax baax baax vraiment di nuyu suñu frère yi nga xamanté nak suñu yaay yi suñu papa yi nga xamanté ak suñu sœurs suñu jabar yi nga xamanté aussi ñoom itam ñu ngi fofu noonu vraiment ñu ngi leen di nuyu di nuyu aussi madame sen ah, madame sen ñu koy nuyu bu baax di nuyu aussi madame Guèye vraiment di nuyu aussi madame Si madame Si aussi ñu ngi koy nuyu bu baax <laughs> baax kon khadim su ko defee vraiment eh, ñu amoon mbégte tey vraiment dalal la ci ci plateau bu yanj bi et eh, xamantene tay tey am nañ mbégte ak contentement aussi partagé wat ko ak yow ndax ce n'est pas la première fois mm-hmm. mais laata loolu dañuy rappeler li nga xamantene mom moy mooy ki ni serveur vocal bi euh, képp nga xamantene bu nga partager. ak ñun à la fois li nga xamantene mom moy émission bi mon nga woté mon nga woté ci 88 628 10 95 88 628 10 95 ñi ni wat aussi wa HLM HLM ah, fofu la joggé sank ni mm-hmm. wa rue kër Babacar si ñu ngi leen di nuyu baax ñom tonton Ndiaye ñoom Seck Ndanaan ak ñoom Fatou Seck madame Maroon ñu ngi leen di nuyu baax ak ñoom Ndeye ñoom El Hadj Seck vraiment ñoom Ibader la famille Guèye de manière générale la ah, ñoom Magou ñoom El Hadj Guèye ñoom Ablaye Guèye ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu baax a baax képp ki nga xamante ne H&M ñu lay nuyu bu baax a baax a baax eh, di am mbégte ak contentement aussi ci ñoom mm, bu baax a baax a baax kon kii su ko defee eh, Khadim ñu ñëw ci li nga xamante ne eh, peut-être moom mooy thème bi. ñu bëggoon la laaj rek lan mooy entrepreneuriat de manière générale voilà merci beaucoup Ibrahim. voilà donc euh, je crois bien que y euh, un thème aussi riche. et thème aussi c'est un thème très pertinent. et mm-hmm. aussi thème c'est un thème d'actualité muy euh, le thème de l'entrepreneuriat, entrepreneuriat voilà léegi euh, entrepreneuriat mooy lan voilà donc c'est ça la question et une question très pertinente donc euh, entrepreneuriat déjà muy jógee ci verbe entreprendre entreprendre donc boo waxee entrepreneuriat il indi ay entrepreneur mm-hmm. Mm-hmm. léegi lan mooy entrepreneur ak kan entrepreneur voilà un entrepreneur c'est quelqu'un qui il est capable de créer des projets ok créer ay projet ay activités yoo xamante ça permet de générer de de la valeur ajoutée ça permet de générer de l'emploi donc kooku la ñuy woowee entrepreneur maanaam mu créer entre quelqu'un nga xamante ne ni mën na créer entreprise boo xamante ne daf koy permettre créer ay emploi mën a am de la richesse voilà donc entrepreneuriat mooy li nga xamante ne ça contribue lépp loo xam ne day contribuer ci création d'entreprise donc c'est un processus de création d'entreprise loolu la ñu woowee entrepreneuriat entreprise c'est de faire c'est dafa parce qu'il y a ce qu'on appelle les très petites entreprises il y a ce qu'on appelle les startups il y a ce qu'on appelle les PME PMI c'est-à-dire petites et moyennes entreprises petites et moyennes industries y a aussi les grandes entreprises maintenant entrepreneuriat c'est toute création d'entreprise sur un territoire bien déterminé manam lepp lo xamantene day dem ci walu création d'entreprise ci un territoire bien déterminé ki koy def nak ñu koy un entrepreneur c'est-à-dire quelqu'un qui xamantene créé day entreprise pour générer de la richesse, mais également pour créer un emploi donc quoi que nous un entrepreneur donc entrepreneuriat c'est le plus important ne la création d'entreprise ok merci beaucoup merci beaucoup Khadim C'est une réponse pertinente bi nga euh, indi indi réponse claire et nette ci li nga xamantene mom moy li nga xamantene moy entrepreneur wala entrepreneuriat mu doon lu am solo mais fofu noonu ñu bëggoon la laaj euh, genre de type euh, d'entrepreneuriat Mhm. Donc les types d'entrepreneuriat, voilà, les types, pardon, de types d'entreprise, le type d'entreprise. Mhm. Oui, il m'a cité tout à l'heure, les startups. Il y a aussi les AGR comme les activités génératrices de revenus. Il y a aussi euh, les TPE, c'est-à-dire très petites entreprises. Mhm. Il y a les PME, petites et moyennes entreprises. Il y a les PMI, petites et moyennes industries. Il y a les grandes entreprises. Donc, c'est ce qu'on appelle les types d'entreprises. Maintenant, ça diffère parce que l'entreprise, ça diffère euh, voilà, d'un domaine à un autre. Voilà. Les entrepreneurs aussi, ça diffère. Entre, entrepreneuriat aussi, donc, il y a des moyens structurants wala gros projets donc si nga débuter ci lu ça devient une entreprise. Comme quoi Comme quoi très bien. J'ai une femme qui xamante day dem plage mhm. jënd ay elle a créé une entreprise. Ah bon benn femme bi nga xam ne day jaay gerte gerte ñëw defar gerte bi saaf ko jaayaat ko kooku elle a aussi créé une entreprise ki nga xamante ne tamit ubbi na benn euh, jëngi jël ay kii nekk marchand ambulant yor ay dalam di jaay au fur et à mesure ba ñëw créer benn boutique installé kooku noonu aussi elle a créé une entreprise donc entreprise mën na jóge ci lu ndaw loo xamante ne nii bon peut-être nit ñi mën nañ ko xeeb mais mën na dem ba jural la loo xamante ne nii day doon lu loo xamante ne après ça va prendre de l'envergure par la suite après maintenant mu créer lo xamanteni ne ni day de l'emploi par exemple maire bi ma la wax mu dem ci plage bi jënd ay jënam di jaay mën na dem en certain moment mu am ay revenu investiraat ko si biir kooku mën na dem ba day recruter ay nit ñoo xam ne ñoo koy liggéeyal il n'aura plus besoin d'aller au niveau de la plage et cetera pour créer ay kiyoom nga xam ne tamit dafa jënd ay poussin am ay 5 10 poussin commencé ci loolu kooku il crée de l'emploi ba keroog mu doon ngand emploi jusqu'à ce que mu doon grande entreprise boo xam ne day transformer di def et tout moom mu recruter ay nitam donc loolu noonu entreprise entrepreneuriat noonu lay donc voilà euh, les les différents types d'entreprises maintenant ça diffère d'un domaine à un autre mhm. donc am na ay entreprises, mais aussi il y a de grandes entreprises. ok merci beaucoup merci beaucoup Khadim Sen ci réponse bu am solo bi nga xamantene mom moom nga moom nga énuméré légui ci li nga xamantene moy les gens types d'entreprise, nga xamantene mom la nit war di def vraiment pour mon qui évoluer mais ñu rappeler rek li nga xamantene mom moy serveur vocal yi képp nga xamantene bu nga participer ci émission bi mon nga.

qui, entrepre, euh, qui, qui entrepreneuriat wala et création d'entreprise entreprise. mooy koo xamante ne peut-être moom mon ngi jël aspect dico transformer wala beaucoup di ci daq pour monter gis boppam. effectivement voilà léegi non des dañuy qui dañuy permettre rek ñu ñëwaat ci suñu sujet nga avons li muy wax moy l'entrepreneuriat et virgule yi wa une ici favorable face au euh, face au chômage des jeunes et mhm. loolu noonu noonu est ce que ban ban analyse nga ci am très bien analyse ma ci am moy d'abord ñu comprendre que l'entrepreneuriat ça peut permettre de régler le problème de l'emploi des jeunes voilà c'est une solution pour régler le chômage des jeunes. Ce chômage, c'est problème d'emploi. Donc, mmh. ça peut permettre, et je crois bien que c'est la solution même pour mm. faire face, pour régler les problèmes donc d'emploi. comment Voilà, comment Très bien. Parce que nous, nous par exemple, l'emploi, on a l'État qui wow. Alors que l'État ne crée pas d'emploi. Ah bon état du créer emploi état day fas mhm. qui créer emploi très bien emploi le secteur privé et dans le secteur privé nous avons de grands entrepreneurs c'est de grands entrepreneurs comme quoi euh, par exemple dans domaine hein, que ça mhm. soit le domaine de l'audiovisuel que ça soit le domaine euh, des télécommunications que ça soit le domaine de l'agriculture le domaine de l'élevage etc dans tous ces différents domaines on a de grands entrepreneurs ce sont des, c'est des grandes entreprises et ce sont des entreprises qui créent de l'emploi. le cas de Sedima, c'est une entreprise. Sedima. Babacar, Ngom. C'est une mm. entreprise qui a créé énormément d'emplois, beaucoup d'emplois. Vous le cas de Bougan Dani avec la saint le cas de Youssou Ndour, le mm. cas de Cheikh Amar, etc. Donc là, nous avons de grands entrepreneurs. Donc c'est le secteur privé, mm. le secteur privé, qui crée emploi. Maintenant, l'État doit créer emploi, mais peut faciliter la création d'emplois en soutenant son secteur privé. Comment soutenir son, Comment secteur, soutenir privé? son secteur privé, par exemple, en réduisant par exemple les taxes, en réduisant les impôts. Voilà. Donc, côté appelé pour permettre à ces entreprises-là de recruter le maximum de jeunes pour faire face maintenant au problème de l'emploi. Donc, État de créer un emploi, mais ça facilite la création d'emplois. Maintenant, en parlant d'entrepreneur aussi, c'est l'individu qui choisit d'être entrepreneur ou bien de ne pas être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est quoi C'est-à-dire, am initiative d'un projet, biman lila, c'est un projet il faut avoir d'abord un projet. un projet d'abord un projet d'abord maanaam projet bi mooy soit yow yaay xool ndax ci agriculture ngay dem wala ci élevage nga jëm wala ci euh, jënd ak jaay et cetera mais il faut avoir un projet bien défini et être sûr que c'est un projet qui est rentable. rentable rentable. maintenant on suppose que c'est quelqu'un qui n'a pas encore d'emploi mu ne man projet bii laa bëgg a def. Mhm. Donc il a cette initiative-là, cette vision-là de créer un projet bien déterminé. Et il n'a pas besoin de gros moyens, comme je le dis toujours. Ah, on peut ah. débuter avec, oui, on peut débuter avec une petite somme d'argent. 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 nit peut débuter pour créer son entreprise. mais mais mais mais kii comme ça koo xamante ne mhm. pour euh, évoluer ci li entreprendre wala mu ci entreprise. Mhm. bépp bu mu mën a nekk ah. lan lan nga koy conseil ndax am na am na ay risques wala amul ay risques. non y' ya a des risques en ya, matière d' entrepreneuriat moom y' ya a des risques. ah bon ah oui si y' a des y' a des risques l' entrepreneur moom ça un entrepreneur c' est quelqu'un qui bute toujours sur des obstacles donc risque moom am na mais risque yooyu warul per warul euh, tax nit ki ne man du ma entreprendre parce que bu fekkee ne yow da ngay tiit ne yii lii bu ma si duggee est ce que du ma perte. maanaam nga ne non dama bëggoon jënd par exemple supposons période tabaski nit ki ne ah man dama bëggoon jënd temps de xar tabaski mais est ce que bu ma ko jëndee est ce que suma ma jaay dinaa si génn non ba may moytul ma perte mu bàyyi dama bëgg a créer emploi mais est ce que ginaar yi duñ dee après laa mën naa perte mu bàyyi booy def noonu là tu ne seras jamais un entrepreneur un entrepreneur c' est quelqu'un qui prend des risques d' abord on prend des risques on investit mhm. souvent on peut perdre quand on perd mais c' est une expérience c'est une expérience. Mhm. C'est des leçons à apprendre, pour que quand on reprend, on puisse les éviter. Mhm. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Et dans la vie, pour réussir, il faut oser prendre des risques. Mhm. Comme on le dit souvent, qui ne risque rien n'a rien. Maintenant, ce que je conseille à ces entrepreneurs-là, ces gens-là qui veulent entreprendre, c'est de se lancer sans pour rien attendre. Donc, Banyahar, quels que soient les moyens, on débute avec les moyens du bord bu fekkee quelqu'un boo xamante dafa bëgg a jaay dafa bëgg a ubbi boutique par exemple amagul mais il peut commencer mu def ay vente en ligne pourquoi pas. di def ay vente en ligne. di dem di dem bon certain moment bu ko neexee bu ko leeree ne fi mu toll nii am na soom mu soog a jël une place ubbi commencer bu fekkente ne keneen koo xamante ne par exemple poulailler la bëgg a def wala nangam mais jarul muy xaar am yenn soom yi mais mën na commencer par 5 pour cent 10 pour cent. commencer commencer di kii di investir ndànk-ndànk bu fekkente ne aussi keneen koo xamante ne dafa bëgg a def le donc lépp loo bëgg a def daal da nga ciy dugg et puis tu entres avec les moyens du bord comme je le dis souvent donc en entreprise on n'a pas besoin d'avoir de grandes sommes pour commencer parce que euh, entreprendre moom c'est un processus mais boo ci bu fekkee da nga yaakaar da ngay dugg léegi mu générer la ay résultats léegi du demee noonu tantôt tu as dit est-ce que ça a des risques am na ay risques. Mm-hmm un entrepreneur aussi c'est quelqu'un bo xamantene il doit être patient il faut nga en patience. Faut mu xaar faaw mu xaar waaw day mën xaar parce que du loo ne da ngay dugal rek. après résultat yi commencé ñew nga commencé non sa xaalis bi là l'entreprise tombe en faillite <laughs> <laughs> donc du demee non <laughs> donc ça demande de la patience. Uh-huh. ça demande de la persévérance et ça demande également du courage. mais nit ki avant muy entreprendre na doon domaine bo au moins mom leer na ko ne c'est un domaine porteur. rentable ah, ensuite mu am passion bi il faut nga bëgg ko déjà li ngay ah, def mu leer lii nii bëgg-bëgg la maanaam da ngay dugg ci agriculture def maraîchage wala nangam sa bëgg-bëgg la da nga bëgg a def aussi élevage na leer ne lii nii sa bëgg-bëgg la da ngay dugg ci wàllu transport et cetera na lay leen lii nii sa bëgg-bëgg la bu ko defee vraiment quel que soit les obstacles et les risques yi nga xamante ne bon c'est évident nit ki mën na ko surmonter ba réussir mais il faut vraiment mu doon koo xam ne day patient et quelqu'un koo xam ne il est courageux pour surmonter les risques moom aussi quelqu'un koo xam ne vraiment il est persévérant parce que loolu mooy entrepreneuriat. wax nga dëgg merci beaucoup merci beaucoup Khadim. Mm-hmm. ndax gars yi dañu naan ki im bien sati bien donc mm-hmm. il faut d'abord. Mm-hmm. de l'amour d'abord. ci li nga xamante ne moom nga bëgg a def. balaa nga ciy dugg ndax nit ki li koy jaral da koy bëgg d'abord. effectivement waaw loolu da ciy am solo kon. nit ki kon lépp lu mu mën a doon rek na doon li nga xamante ne sa bëgg la su ko defee li nga xamante ne moom la ci wax nii pour eh, vraiment ñu lamboo ko avant ñu ci dugg dina mën a dina mën a nekk mhm. la patience la persévérance et ak lépp aussi li nga xamante ne moom mooy ay risques nga mën ko jël en avant xam ne lépp mën na am mhm. mais lépp ci am rek en tant que yaa ngi bëgg rek bu boobaa doo découragé mhm. waaw mais mais ci kaw loolu noonu eh, ban ban eh, ban kay stratégie et mom lañ mën a def comme tay l'entrepreneuriat moy la création d'entreprise nga dégg fi ni tay ci bir dëkk bi. Mhm. li nga xamante mom moom sonon sonal ñëpp mooy le manque d'emploi mom moom ñuy wax. Mhm. Hmm? l' emploi et l'employabilité employabilité. Mhm. loolu noonu et nga suñ sukkandikoo ci li nga xamante mom moom nga wax légui et ban ban ban conseil nga jox jeunes yi nga xamante vraiment ñom ñi ngi fii au Sénégal. toujours ñuy jooytu li nga xamante mom moy walu wàllu liggéey. voilà donc euh, conseil bi ma leen di jox moy comme je l'ai dit tout à l'heure parce que bu nek bo toogee di xaar état indil la liggéey doo liggéey. bu fekkente ne aussi y a des gens qui se lancent par exemple def ay émigration clandestine jël parce que c'est des sommes yoo xamante ni leen quelqu'un qui prend par exemple trois cent mille wala quatre cent mille wala cinq cent mille nga dugal ko ci ay gaal di dem ay Europe et cetera mais quatre cent mille yooyu wala cinq cent mille yooyu boo ko investir mun na la jural ay millions. nga xamante ne ay Nicaragua jël six millions wala cinq millions kii ko pour dem États-Unis et cetera par voie illégale man je crois que somme boobu noonu ku ko investir Sénégal mën nga liggéey. Et au Sénégal, il y a vraiment des secteurs porteurs. Vous direz le secteur bah oui le secteur de l'élevage. Mhm. Vraiment, euh, c'est un secteur rentable. le secteur de l'agriculture c'est vraiment un secteur qui est rentable également le domaine du transport c'est également un domaine qui est rentable le commerce c'est un domaine qui est vraiment rentable donc je crois bien que ni euh, au lieu d'attendre je yi donc c'est à eux de créer leur propre emploi donc il faut être un créateur d'emploi. Un créateur d'emploi. Un créateur d'emploi. Parce que l'entrepreneur, c'est un créateur d'emploi. Donc au lieu de créer emploi, tu dois créer de l'emploi. Ok, ambassadeur Très bien, être autonome, être un créateur d'emploi. Tu deviens comme Ninko Hess, ambassadeur Et là, toi, tu vas recruter, tu vas permettre à des gens de travailler. Parce que tu as dit, beau créer entreprise, non seulement tu gagnes. Mhm. mais tu permets aux gens aussi de travailler. Je te donne par exemple mon, mon exemple. moi, mhm. à chaque fois, parce que toujours moi-même, j'ai beaucoup de projets et ma force c'est que man bu ma amee benn projet en tête je fais tout pour essayer de le réaliser que ça soit euh, voilà bénéfique mhm. ou bien également que je bute sur des inconvénients à chaque fois ma koy jéem a réaliser ma xam quoi voilà damay tester damay xool benn kii boo xamante ne yaakaar naa ma essayer voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais commencé par euh, ben, un cabinet de consultance, mhm. KMS Consulting, qui mhm. s'occupe des affaires de développement territorial. Mais c'est un projet quand même structurant. Mhm. Jusqu'à présent, il y a des, aléas, mais je l'avais fait en, rapport avec beaucoup de, beaucoup de, de, de, de mes amis. Ce sont des experts dans des domaines variés. Voilà. Moi, l'an dernier, j'ai créé également une autre entreprise qui s'appelle euh, BBC Multiservice. que le transfert d'argent, etc., le domaine de cosmétiques, etc., etc. Et voilà, et voilà. À chaque fois que je crée cette entreprise, ce sont des gens que je recrute et qui, qui y travaillent. Qui y travaillent. Moi, je également dans le domaine du transport. Tricycle, j'achète, je donne aux gens, ils conduisent. Et enfin, chaque, chaque mois, comment, ils, ils me versent de l'argent donc là voilà. entreprise je travaille et je les permets de travailler. Mm, surtout amna ben ki kii keroog dafa toog ben instant mu ne ah d'accord accord ñu daje mënuñu mënuñu bu neex mu patron mais juste ça c'est une fierté. <laughs> C'est une fierté parce que là, yow ki ni au moins yow tax nga muy liggéey. de subvenir à ses besoins. surtout et tu gagnes. Mm-hmm. parce que chaque mois dina la jox temps. c'est un marché gagnant-gagnant. C'est un marché gagnant-gagnant. Mmh. Tu en créé de l'emploi parce que tu permets aux gens de travailler. Mmh. yow ci sa yaa ngi liggéey mais yow yaa ngi permettre ñeneen ñuy liggéey. Mmh. donc entrepreneuriat loolu la et je crois bien que vraiment daf di loo xamante ne nii ñu bëri peut-être dañuy bon dañuy am li ñuy ragal wala ñuy mais le problème fondamental mooy ñenn ñi nga xamante dañuy xaar am ay somme colossale pour, pour, pour, entreprendre. Pour, entreprendre, ça ne demande pas une grande somme d'argent. Donc, vous pouvez commencer par lo xamanteni lu ndaw la mhm. au fur et à mesure nga gëm ko xamné d'ici quelques années voilà d'ici quelques temps dina rapporter rapporter dara. Maintenant bu fekkenté un nak da nga am projet Structuré, un grand projet, mën nga aussi rédiger. Rédiger rédiger sa projet, mhm. tu vas vers euh, les les les les, euh, les les comment dirais-je encore qui qui nga xamné financer les projets comme ay ANPEJ ay mhm. euh, donc la DER délégation à l'entrepreneuriat mhm. rapide maintenant nga def ce projet bancable avec ce business plan et tout tu mhm. déposes ça au niveau de ces structures financières bu ko defee ñoom ñu financer la commence ton travail là aussi c'est possible parce que am un projet structurant ils n'ont pas les moyens donc état aussi faut les accompagner euh, les jeunes à également la création d'emplois. Ils soutenir l'ADR, la délégation à l'entrepreneuriat l'agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes donc ce sont des structures qui ont ñu pour soutenir ces jeunes là. ils ont xamante l'élevage, bëgg nañ dem def et tout. Mhm. donc bu un grand projet la boo xam ne nit ki amul ay moyens donc maintenant na euh, faire projet ensuite il dépose le projet maintenant au niveau de ces structures là beaucoup d'effets membres il recevoir financement et ce qui va lui permettre donc de commencer son travail et j'ai un ami il s'appelle Hassan, euh, euh, c'est un jeune très courageux. Ah bon ouais, il a un projet, euh, il avait un projet parce que commencer n'a qu'à réaliser, donc c'est mm. un projet comme comme sédiment à faire ou qu'il a volaille. Mm-hmm. dans, il est dans le domaine donc de, de comment dire encore de l'aviculture dans le domaine de l'aviculture voilà donc projet structurant là bas moi je lui ai toujours dit ça il faut pas attendre l'État parce qu'ils ont déposé au niveau des bailleurs des charmants, il ne faut pas attendre c'est vrai que tu as fait ton projet tu l'as conçu déposé mais mais bul il commencé avec les moyens du bord maintenant en attendant sommes venus pour apporter le soutien heureusement il a commencé avec ses moyens il a commencé à produire structure il il a commencé, il a recruté énormément de gens, mais il travaille. Il est ah dans la zone de Saint-Louis. Ah. Saint-Louis Avicole Fraîche. C'est ça le, nom de l'entreprise, Saint-Louis Avicole Fraîche. Et il a recruté énormément de jeunes qui travaillent là-bas. Certains sont dans le domaine de la production, dans le domaine de la transformation, dans le domaine de, la vente, parce que genre chaîne de valeur là. Et là, il est là avec son bureau, il dirige son entreprise et donc je yi man donc motivation boobu ak courage boobu bëgg ñu am vraiment amul xaar donc ku ne yow yaay li et puis vraiment tu verras des résultats. parce que un domaine porteur. quel que soit les risques bu fekkente ne ngëm-ngëm ok merci beaucoup merci Khadim vraiment analyse bu am solo mais serveur vocal bi toujours ak ak yi nga vivre en même temps ak li peut-être émission

yooyu ñu koy gungé vraiment ji bopp ñun li nga xamante aussi vraiment moom mooy génn émission bi et lolu non aussi doon lu nga xamante lu am solo la kon su ko defee xaadim dañuy ñëwaat ci li nga xamante peut-être euh, bu légui nag moom mooy euh, kii suñu sujet mhm. ñu gis né ki ni au Sénégal il y a deux types de jeunes yi nga xamante ñom ñoo fi ne. Mhm. amna ñi nga xamante vraiment ce sont des diplômés. Mhm. ñi nga xamante ne vraiment ils n'ont pas eu la chance. Mhm. d'avoir des diplômes. et ñi nga xamante ne eh, peut-être tay ñom ñoo ñom lañuy woy ñi nga xamante ne ñoo jang bu am ay diplômes. ñom it gis na phénomène bi nga xamante ne peut-être ñom ñoo touché ñi mom mo leen touché. wala li nga xamante ne moy mooy ñi nga xamante ni jànguñu. moom seen mébét ñom toujours dañuy xaar état. Mhm. ci li nga xamantene mom mo jëm ci walu liggéey. Mhm. ñoo ñun aussi ban conseil wala ban alerte mom nga leen di lancer. Mm, voilà donc comme euh, tu l'as si bien dit il y a deux types de de jeunes. Mm. donc nga xamantene bon ils ont appris. ensuite ñu ngi ak seen diplôme. Mhm. ñu ngi seen licence ñu ngi seen master etc ak ñi nga xamantene ne jànguñu. voilà donc ñaar yooyu ñoo ñoo am maintenant souvent bu fekkee ñi nga xam ne jàng nañ ba am yenn diplôme bi ñoom ñi ngi xaar. soit état recruter leen fen comme ça ñu amoon projet toog seen bureau di liggéey ñu bëri loolu la ñuy xaar loolu nag moo tax emploi bi yokku. mais est-ce que est-ce solution la. non c'est pas une solution déjà loolu moo tax sax c'est c'est loolu moo tax. chômage bi yokku. le taux de chômage bi yokku ça voilà ça accroît le taux de chômage. day mm. yokku parce que bu fekkee nga am sa par exemple un master en ceci ou cela mm. léegi yow ngay xaar voilà ñu recruter la fenn mais voilà ou bien ngay xaar état bi dugal la fenn là mais tu risques d'être chômeur. donc étant donné que l'apprentissage c'est une ouverture d'esprit. c'est une ouverture d'esprit donc jang nga voilà sa xel ki na parce que jang aussi loolu lay jëriñ. Mm-hmm. nit ki que voilà maintenant tu as tu as des compétences tu as acquis un certain nombre de savoirs. Euh, des compétences avérées dans un domaine bien précis donc au lieu ngay créer l'emploi, toi tu dois même créer euh, ton emploi Il y a des cet emploi mais au fait, ne état et nous, bëri nous, parce qu'ils ont leur diplôme qui diplôme chacun se fixe un salaire idéal di benn euh, alors que les choses ne se passent pas comme ça puis, mën déposer il y' a beaucoup de de d' et cetera mën déposer déposer mais les gens ils ne recrutent pas ils ne recrutent pas comme ça. Ah, <laughs> Sénégal là vraiment on le sait. Mm-hmm. Donc le recrutement, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Mm-hmm. Voilà, donc souvent, il y a des appels d'offres qu'on lance par-ci ou par-cela, les gens déposent et tout. Et souvent, on demande une certaine expérience aux jeunes. 50 ans d'expérience dans tel ou tel domaine. Ah, pour un jeune qui vient fraîchement de, ah, sortir d'une ah. formation ou bien de l'université. Voilà, donc, voilà, solution. donc, quoi non, mhm. Voilà, Donc, nous ce sont des gens qui sont appelés maintenant mhm. à créer leur propre entreprise, à se lancer donc dans le domaine de l'entrepreneuriat ñi nga xamantene aussi euh, jànguñu parce que entrepreneuriat mm. bon c'est vrai que ki jang dans n'importe quel domaine ki jang il a une avancée voilà amn'a amn'a quand même un surplus comparé mm-hmm. aux autres mm-hmm. mais ki jàngul aussi c'est pas parce que jàngul que ni warul créer entreprise il y a de grands entrepreneurs dans ce pays là ñoo nga certes non ce ah. seetee ñi peut-être jang nañ am na ñoo xam jangu a ay entrepreneur très bien <laughs> généralement c'est ça dafa am hein? jour euh, mhm. image ma mhm. c'était c'est sur les réseaux sociaux donc benn ay a xamante ki la yoron di jaay yi sac di euh, sur l'image on a dit que d'ici peu mhm ki nga xam ne moom moo doon moom ki woon di jaay moom mooy recruter ñooñu nga xam ne dañ demoon jàngi <laughs> mais c'est c'est c'est ça ce que c'est ça la réalité <laughs> c'est ça la réalité au Sénégal non c'est ça la réalité effectivement <laughs> effectivement parce que booy xool ñi nga les grandes entreprises ay ñoom Serigne Boub ay ñoom kii donc voilà y a de grands entrepreneurs qui sont là et qui n'ont pas fait des études avancées des études poussées mhm. mais boo demee ci seen entreprise mais ils recrutent des gens yoo xam ne ay ay master lañ am ñen ñi nekk ay doctorants parce que boo créé woon tey entreprise am na envergure bu muy toll mhm. di nga soxla comptable di nga soxla quelqu'un qui gère les ressources humaines mhm. un DRH directeur des ressources humaines mhm. di nga soxla et cetera et cetera technologie bi koy gérer di nga soxla et donc dans n'importe quel domaine voilà voilà nga xam ne koo côté marketing communication pour la promotion de l'entreprise et et là tu vas recruter des gens qui sont xam ils sont diplômés donc comme am licence en comptable ou bien un master en comptable un master en communication en master en gestion des ressources humaines etc. donc ce sont ces gens là qu'on recrute et pourtant créent une entreprise oui, on na sax pas euh, faire l'école Donc hein. nañ ci ci effectivement <laughs> <laughs> voilà donc c'est ça donc c'est juste pour te montrer que ni mhm. n'est c'est pas parce qu'on n'a pas fait l'école mhm. euh, qu'on ne doit pas se lancer dans l'entrepreneuriat donc l'entrepreneuriat, euh, là, tu nga def des études poussées mhm. mais quand même boo jàngee ça devient quand même un surplus voilà loolu moom avantage lay doon pour ki nga xamante ne vraiment jàng na parce que daf koy éveiller euh, booy xool aussi daf koy pousser à ce que moom mu formaliser son entreprise. parce que am na quand même ay là aussi c' est très important entreprise yu bëri yoo xam ne am nañu. Euh, si Sénégal y' a beaucoup d' entreprises yoo xamante ni c' est pas bien organisé. surtout waaw. Ce n'est aussi c'est pas formel là aussi ñàkk a un blocage parce que souvent c'est pas formel souvent c'est la économie informelle quoi l'économie populaire ce sont des entreprises et ça contribue quand même euh, au développement de ce pays la plupart je peux dire des entreprises yi nga xamante Sénégal booy xool yu bëri ay entreprises informelles la entreprise informelle booy boo c'est pas reconnu c'est pas reconnu par le gouvernement à mon registre de commerce <laughs> et là dans ce cas il n'est pas reconnue aussi si doon une subvention tu ne peux pas recevoir parce que déjà à mon INEA à mon registre de commerce voilà donc qui nga est mm-hmm. c'est quelqu'un qui est éveillé da nga xam ah. entreprise la première chose que je vais faire c'est essayer d'avoir un INEA c'est essayer d'avoir également un registre de commerce voilà ensuite il y a aussi euh, des formations pour renforcer les capacités donc de ces entrepreneurs là de ces entrepreneurs là aussi dañuy bénéficier non seulement loolu le soutien financier et technique dañuy am un appui financier soutien financier dañ leen di subventionner mhm, dañ leen di financer mhm. dañuy am également un appui technique il y a de grands entrepreneurs qui xamné des séminaires en renforcement de capacités pour que ñom ñu à gérer également leurs entreprises parce qu'il y a des ce qu'on appelle, euh, par exemple, gérer mieux son entreprise. Voilà, donc il y a une homme à ces entrepreneurs-là comment gérer son entreprise. Maintenant, qui c'est quelqu'un qui est éveillé et qui sait que l'entreprise quand même est appelée à être formalisée. Et là, dans ce cas, ça peut devenir vraiment un, avantage. Mais qui jangle aussi, il mm-hmm. peut, pour créer une entreprise, il a besoin aussi de s'approcher de, ces, gens-là qui ont appris, ou bien de ces grands formateurs-là, ou mm-hmm. bien des experts dans le domaine de, l'entrepreneuriat. Mm-hmm par exemple tey jii nii bu fekkoon dafa am benn jeune bu créer entreprise man bu ma côté euh, comment faire voilà pour bi am ay papier am nooy def ba les les les les structures financières comment il faut réaliser un projet qui est bancable déposer au niveau des structures pour mon financement au niveau de l'APIX également pour mon apix pour mon une reconnaissance am sa registre de commerce am sa linéa, etc. ensuite s'approcher également des des des des, euh, comment dire encore des structures aussi de formation il y a les trois FPT par exemple fonds de formation etc qui ont ramené de soutenir aussi les les les les, entrepreneurs pour également nous réussir dans le domaine donc qui jàngul aussi dans la parce que entreprise moom euh, bu vision mhm. Euh, à un de niveau élevé par exemple il faut vraiment que nous donne loo xam c'est formel la plupart des entreprises yi des entreprises qui sont informelles

boutique boutique boutique mhm. mais. genre papier yooyu nga xamante war. Mhm. ñi nga nañ ko xel ñu ñu ñu dox. ko na vraiment souvent mhm. aussi et vraiment donc li nga vraiment ci li nga mais mais suñu xoolee aussi ci li nga xamante ne peut-être moom moo fi xew mhm. moo doon benn benn phénomène bu am mhm. solo mhm. mooy le système càq-càq bi nga xamante ne la jeunesse sénégalaise moom ci seen bopp créé nañ ko suñu eh, kii ni seen bopp vis-à-vis ci li nga xamante ne peut-être boobu noonu dëkk bi tiital woon nañ ci moment ba nga xamante ne ñoom itam vraiment il n'avait pas de quoi entre les mains loo xamante ne peut-être mën nañ ci jàpp du coup gis nga vraiment fi nga xamante ne aussi gën nañ foofu may laaj ndax loolu noonu aussi ban genre Euh, d' activité la mbokk naa yi nga xamante ne moom mooy entrepreneuriat la pas. Hmm, bon mën nañ par exemple bu fekkente ne ki nga xam ne moom moo jënd ay oto cak-cakam joxe. Mhm. par exemple am na am na ñoo xam ne ngi dawal mais moom mu ñu moto yi. donc mën nga toog yow Ibrahima nga ne non man. Mhm. j'ai tant mhm. par exemple benn somme d' argent. dama bëgg a lancé wu ci domaine cak-cak nga jën cinq moto Jakarta wala quatre moto Jakarta nga jox ko ay jeunes ñuy daw di la verser. tu as créé de l'entreprise Qui <laughs> dawal il n'est pas l'entrepreneur parce que moto bi ko moomu ko <laughs> comprendre donc c'est toi qui es l'entrepreneur c'est toi qui as créé l'entreprise parce que yow yaa jënd say moto mhm. yow moto yi ñuy daw selon sa procédure chaque semaine wala chaque mois dañuy verser tu as créé de l'entreprise eux ils travaillent pour toi pour toi c'est toi l'entrepreneur c'est toi le patron voilà <laughs> merci beaucoup merci beaucoup Khadim <laughs> vraiment maintenant tout le monde ci bëggoon yokk c'est hein? maintenant phénomène bobu nak ce mhm. que ce que je déplore c'est vrai mhm. que ñom bon ñi ngi si liguey et puis ça permet aussi de de régler leurs problèmes mhm. mais il y a un problème un manque d'organisation comme quoi pas c'est pas bien organisé c'est ah. pas bien structuré ah bon parce que ne jël ce qui moto yi di n'importe qui eh, nan la waroon demee nan la ça devait être organisé par exemple sous forme de GIE sous forme de GIE ñu kii am fu ñuy donc ñu structurer que de telle sorte que nous doon loo xamante voilà ñu ku jógee fii kii ci wala donc ça devait être organisé sous forme par exemple de GIE ñu structurer les acteurs qui travaillent dans le domaine comme doon loo xamante ne vraiment ça sera quelque chose de bien organisé donc le problème fondamental c'est la mal organisation donc donc de ce de ce domaine là qui devient qui prend toujours de l'ampleur mm-hmm. parce que aussi euh, comme ni ñu amuñu liggéey aussi silence également parfois violence. Il y a la violence, il y a, les accidents. Il y a le banditisme. Il y a le banditisme. les accidents également que cela provoque par-ci, par-là. Et l'oliep boy hall, manque d'organisation. Le fait qu'on s'était bien organisé, ça, ça serait, vraiment, ça serait bien structuré. mais loo jàpp ne ñan nga jàpp ne ñoom ñoo ñoom ñoo sur une table ronde vraiment pour qui qui résoudre li nga d'abord mooy problème euh, xam nga comme côté transport là il faut ministre du transport am am na si il y a aussi euh, wàllum sécurité aussi sécurité routière mhm. am na si wàll ak ñëpp ak ñi nga xamante ne nag soit ñoom ñoo jënd moto yi joxe ko ñuy daw ak aussi ñi nga xamante ne des chauffeurs des càcc et cetera donc ñoo ñëpp euh, l' de ces acteurs qui tournent autour euh, voilà de ce domaine là ñoom ñoom waroon toog autour d'une table maintenant waxtaan ba xool comment organiser ce travail là parce que de l'eau peut-être mon parce que ça permet de, de ça crée de l'emploi et ça permet aussi à ces jeunes là d'avoir euh, de quoi régler leurs besoins. Mhm. Voilà, maintenant, donc, qui manque mon organisation et les différents acteurs euh, qui tournent autour de ce domaine ils ont autour d'une table waxtaan comment organiser le secteur parce que c'est mal organisé donc marque d'organisation man loolu laa gis quoi. quoi. Mhm. merci beaucoup merci beaucoup Khadim Sen. vraiment tu as yu am solo yi vis-à-vis li nga xamante mooy question yi nga xamante ñu ngi ñu ngi koy poser mu doon vraiment eh, lu am solo et ñi rappelé rek eh, auditeurs et auditrices li nga xamante mom moy serveur vocal yi 88 628 10 95 et 88 et 628 10 95 ñi demaat ba wookam rek di nuyu Omar Diouf ak eh, ñoom.

Euh, entre les quatre coins et ce que tu fait aussi vraiment ni am contentement de le de nous personnel bi nga vraiment artistique de dante nous ñu di nous bam nous ñu la Ahmed Gueye Gueye vraiment ñu di bu sommes FM sur la chaîne de Safina FM ti émission et takusan mi à la même heure et à de 17h et 18h ti émission bu am solo bi nga xamantene souvent thème yu am solo lañ fi partager et vraiment suko que rek et vraiment ñi leen di rappeler li nga xamante moy serveur bi 88 et 628 et 10 95 88 et 628 et 10 95 kon euh, ki xaadim ñewaté mhm. et ñu bëgg la laaj et vraiment béni aspect aussi rek ba légui ndax système bi nga wala phénomène bi nga xamante wala demoon bi nga xamante ne moom lañ doon ki partagé légui moy le système de càq-càq nga gis ne fini au Sénégal et vraiment amna ñu ko questionné ndax li nga xamante ne moom moo ko waral mooy fii nii dafa doon benn dëkk bi nga xamante ne góorgóorlu yi ñoom ñoo fi gën a bëri. Mhm. pour ñu structurer ko yaakaar naa ne dina xaw a doy waar ndax man damay am sama benn moto. Mhm. aw ma lu ma joxe dépense xëy xëy rek yéeg sama moto. Mhm. ñëw ci koñ bi wala ci buntu kër gi gaare. gis nit laajte ko foo jëm ma supporté dem. est-ce que loolu noonu it avec le Sénégal que nous sommes là. est-ce que organiser ko aussi dina dina doon yomb. Euh, bon mën na bañ a doon lu yomb mais quand même ça ne veut pas dire que c'est impossible donc organiser ko moom c'est bel et bien possible voilà donc euh, tout d'abord côté sécurité dafa war am sécurité par exemple exiger ay casque ay casque ay casque kii mën kii dawal mhm. war na mën a am casque ki nga xamante ne moom lañ supporter aussi normalement dafa war am casque moto bi tamit ki koy dawal war nañ kii war na am kayit nga xam ne moto bi moto tel ak tel am euh, matricule am euh, euh, comme comment dirais-je encore euh, euh, comment dirais-je encore ay kayitam daal dafa war a mat quoi waaw ay kayitam dafa war a mat donc bu ko defee là dans ce cas là on pourrait comprendre parce que ñeneen dafa am ñeneen ñoo xam dañ ciy dugg dañu nekk des des des malfaiteurs yoo xamante ne peut-être liggéey taxu leen jóg maintenant mënoo xam kan mooy kan la liggéey tax a jóg mënoo xam kan la liggéey taxu la jóg et c'est pourquoi le manque d'organisation est source donc de beaucoup de, de beaucoup de problèmes. bu fekkoon ne c'est matriculé qui a carte grise Qui a une carte na voilà moto bi am na on peut comprendre qui a casque etc Il croit aussi euh, comment essayer de réorganiser ça pour aussi Donner leur loo xamante faut nii du foo jógee après nga dugg voilà sinon y a nombre Qui atteindre aussi et je crois que faut le dire, donc ça atteint un nombre euh, un peu exagéré. Et là aussi, il y a des, problèmes donc, au niveau de la circulation routière surtout. ça peut être à l'origine de beaucoup de problèmes, notamment les vols, les accidents, etc. etc. Et c'est pourquoi peut-être que l'organisation, ça peut être euh, euh, mais quand mm-hmm. même, c'est une possibilité. Et mo wara am sax réorganiser. Et pour nous réorganiser il faut que nous nous autour de ce secteur là, mm-hmm. que nous ñu rencontrer comment le réorganiser kuy daw ñu xam ne moto bi kii am na kayit pour lii bu amee ñu mën a xam kuy daw aussi ñu xam ne kii am na casque et cetera pour la protection donc des des des citoyens ñi nga xam ne ñoo koy jël. parce que quoi qu'on dise aussi c'est quelque chose qui permet que ça a des avantages comme des inconvénients. Ah. les avantages c'est quoi la la la la circulation rapide des personnes et des biens. Mhm, tey jii da ngay soxla dara tu n'as pas besoin de te déplacer kii nga woote mhm. ñu indi la ko nga soxla dem fenn peut-être y a des embouteillages ñoom fi ñu mën a jaar ba dem seen yoon peut-être que auto yi mënuñ fa jaar loolu noonu ce sont des avantages l'autre avantage aussi c'est mm. la création de richesse parce que ki koy dawal mi ngi ciy gis boppam mi ngi ciy def joxe dépense mi ngi ciy régler ay problème am donc peut-être kooku boo leen nee arrêté leen ah, yow mënoo ko jox liggéey <laughs> ça devient <laughs> day doon loo xamante ne nii donc day day doy waar ah, voilà donc euh, li ma ci gis organisation bi quelles que soient les difficultés mu doon loo xamante vraiment c'est ça sera organisé de telle sorte que inconvénients et conséquences et que cela devient loo xamante bon ça contribue à la création de richesses et au développement de ce pays. ok merci beaucoup merci beaucoup Khadim léegi dañuy jël émission bi ñu décentraliser ko par rapport à à travers les 14 régions du Sénégal Nous def remarqué la eh, région bu la wala est déjà eh, jàpp nañ ni am la peut-être moom moo fa dox wala mhm. comme tey soo de la zone Casamance ni nga xamante ne vraiment y a beaucoup de mangrove ba beaucoup de fruits yi nga xamante ne am ñoom ñuy foofu mhm. foofu noonu aussi am une source humaine bi nga xamante peut-être amaana et ñoom itam vraiment ils sont intéressés à l'emploi sinon mhm. même bon qu'ils au travail mhm. et nga gis aussi le bassin enracier C'est mhm. wala bog euh, la région de Tamba nga xamantene aussi l'agriculture aussi donne na fa activité bu bu dox bu nga xamantene aussi vraiment eh, il y a tant de jeunes ñoo xamantene ne ñu ko fay pratiquer et à travers à travers eh, ces qui cette qui recherche sinon cette occasion oh, lan ngay lan ngay wax fofu noonu par rapport soko relativiser ak li nga xamantene l'État la moom war def pour vraiment Sénégal gox yu bëri. mën mm. na am li nga xamante nit très bien D'ailleurs, ailleurs li nga kii soulevé est très très important euh, L'attractivité territoriale. wax attractivité territoriale. surtout attractivité territoriale donc zone boo rek. Mm-hmm zone le territoire développement dafa décentralisation au niveau des zones de état non donc ça ne se passe pas comme ça donc décentralisation état l'état a transféré des compétences mm-hmm, il a transféré des compétences au niveau des collectivités locales Collectivités locales. actuellement il y a deux zones de collectivités locales il y a le département et la commune mm-hmm. Voilà. Donc, vous dans chaque région, que ce soit la région de Durbel, la région de Tambacounda, la région de Saint-Louis, euh, le sud de la Casamance, la région de Kolda, la région de Saint-Louis, etc., mm, etc. Donc, région y a amna ressources. Donc, il n'y a pas un territoire qui n'a pas de ressources problème bi mooy kay les ressources ne sont pas valorisées. ne sont pas ne sont pas exploitées et même s'ils sont exploités. Mhm. même si elles sont exploitées elles sont mal exploitées. donc maintenant la bonne exploitation des ressources la valorisation des ressources. les ressources mhm. locales elles doivent être valorisées. et valoriser exploiter c'est deux choses différentes. c'est deux choses différentes. On nga exploiter mais tu ne valorises pas. différence très bien l'exploitation moi, il tu comme ça par exemple par exemple bu ñu le domaine de la pêche yow yaa ngi napp di mm-hmm. jën di ngi napp rek di jaay yaa ngi exploité mais est-ce que yaa ngi koy valoriser bu fekkee yow jën bu nekk ngay jël etc. deux ans trois ans mais amateur, jën mais tu arrêtes <laughs> parce que même boo demee aussi do, do, do, nap, parce que jën amatul. jën amatul yaa ngi don exploité mais valoriser woo valoriser c'est-à-dire maintenant valoriser moi, par exemple wala nga def ko valeur ajoutée. très c'est la transformation avec euh, la création de la valeur ajoutée par exemple côté par exemple ñu ngi mhm. parce exploitation valorisation. exploité yow xam nga ngay aussi dem tu les transformes. tu en les transformant tu crées de la valeur ajoutée. ok le secteur de la pêche boo jëlee également le secteur euh, de l'agriculture muy gerte ñun dañuy jël gerte gi rek dem jaay ko noonu mais loolu c' est une perte. c' une perte c' est ah. une perte énorme ah bon? parce que effectivement. parce que noo mën a def pour mu. très bien maintenant pour pour pour pour mu rentable il faudra qu' il y ait de la transformation. comme quoi jël nga sa gerte da nga koy ah. transformer mm-hmm. boo ko transformer. puis mm-hmm. mën nga transformer en huile, en eau de javel et cetera et cetera donc transformation etc etc savon tout ça etc maintenant maintenant en transformant cela non seulement y a créé de l'emploi mais tu crées aussi de la valeur ajoutée valeur ajoutée boobu nag permettre ce qu'on appelle la création de de de richesse et participe participer aussi à l'attractivité territoriale maintenant territoire bu y a des ressources mais dafa am territoire yo, ressources par exemple territoire bi y ay ressources territoire mm-hmm avec euh, l'acte 3 de la décentralisation, l'objectif fondamental, c'était de créer, diviser le Sénégal en pôles territoires. Mm -hmm. Donc, beaucoup les zones sud, les dans zones nord, etc., etc. Maintenant, comme nous l'avons dit, ce n'est pas du domaine de l'État, comme c'est de la décentralisation. Collectivités locales, ont dans leur zone, il y des ressources, ils créent nous créer des projets pour valoriser les ressources. Bon, demain, par exemple, au niveau de la zone sud, mm-hmm. mango, mango, mais mango, mango, ya mango, euh, alors que. Mhm. alors que loolu noonu dañ ko waroon transformer mhm. boo fa demee yow boo faree mangue di ko lekk dañuy xam non fi on n'en touche pas. Ah ça les mangues pourrissent. Ah. nga jël le domaine de l'anacard, de et etc. donc. il y a pas certes il y a des, des, unités de transformation mais c'est insuffisant bon insuffisant. les ressources fa -hmm. donc faut non s'il y avait des unités de transformation ah, et c'est ça c'est ça les entreprises maintenant c'est à dire qu'il y a une unité de transformation bon ça transforme la mangue vous xam ça transforme l'Anacard. Vous xam ne ça transforme Madé, def ko jus wala confiture wala et cetera et cetera. te loolu aussi dafay contribuer à notre au développement économique de notre. très bien c'est ça c'est ça le développement. D'autres importer ay boissons. Mm, voilà ñun ci ci suñu domaine loolu la ñuy waxee loolu la le développement économique local. ok développement économique très bien et ça rime avec l'entrepreneuriat le développement économique local. Ça développe la, euh, économiquement, ça développe la, localité. Ça contribue à l'attractivité territoriale. Euh, ça, me rappelle ce une professeur universitaire, il, <laughs> il disait qu'un territoire doit être sexy. waaw comme <laughs> xale bu jigéen bu solo loo xamante kii nag ku ko gis da nga koy xool ne nii parce que c'est sexy. normalement voilà maintenant am na ressources yu muy am boo jëlee Casamance c'est un mm. territoire qui est sexy. maintenant ce qui reste valoriser ce territoire. rek parce que ressources yëpp a ngi foofu. mango baa ngi mm. mango baa ngi nii. Mm. la manière de s'habiller. Voilà, mangue bangini, mad etc. Donc c'est une métaphore. Un territoire doit être sexy, mais territoire doit attirer. Atterrir quoi. D'attirer, voilà, accueillant, va parler attirer les investisseurs. Madame Boyore Sahalis. Parce que nous, nous, Très bien. Au-delà de en tant qu'entrepreneur, parce que da ngay gis ne fii kat vraiment bu ma bu ma defaree fii sama benn kii de transformation et cetera def nangam day dox les investisseurs très bien ce sont les investisseurs les bailleurs de fonds mhm. donc ces gens là bu ñu ñëwee dañuy sañ a investir seen xaalis te ñooñu bu ñu investir dañuy créer emploi surtout jeunes yi ci dëkk bi dañuy liggéey mu doon benn projet boo xam mu doon benn projet ne taxaw na c'est lucratif très bien c'est lucratif ça génère de l'emploi ça génère de la richesse les jeunes là ñi nga xam amuñu woon emploi dañuy am emploi parce que kooku ñëw na créer na fa projet boo xam ne mi ngi transformer mango bi nangam yaa ngi gis transformé na mango bi transformé nañ madd bi transformé na nii ak li il crée de l'emploi kii ni transformé suuf si ndax su ñëwee moom day jënd bindi kii ngi nga xamante très bien day dem ay hectares di fa béy au lieu ñu koy importer eh, muy dem parce que ñun lool foofu foofu la ñuy foofu la ñuy perdre dañuy jël maanaam nos produits mm-hmm. euh, muy gerte gi muy jën jën wala muy nangam et cetera. Mm-hmm. bépp ressource daal nuñ mm-hmm. dañ koy jël on exporte on importe je veux dire euh, euh, kii on exporte je veux dire. les produits on appelle les produits de rente. maanaam jël produit rek jaay ko noonu. jaay ko noonu brutalement perte la. parce que boo ko jaayee tey màng bi. boo li xamante ne moom la war a ko war a valoriser. très bien li ci war a génn yëpp. da nga koy jaay noonu sànga. déchiffré c'est une ko déchiffrer ci ressource boo jël rek. ressource moom tant que ressource pour mu amal la njëriñ. il faut que ça soit transformé pour mu am valeur ajoutée il faut que ça mais boo ko jaayee noonu rek perte la nga jël màng bi par exemple jaay koy entreprise étrangère boo xam ne mu ngi Allemagne. Mhm. wala bisaab. Ah, bisaab bi dañ koy xé mais et cetera ça peut. ah bon <laughs> ah oui. ça peut faire de la boisson et concert effectivement boisson thé lipton en forme de ah. bisaab confiture. Ah. yooyu yëpp day jógee ci bisaab. am na benn entreprise bo xamné ne tey sur la dans la zone euh, sin Saloum. Mhm. euh ñooñu ci bisaab kessé lañ doon liggé hein dañu jël ay terre. Mhm. yoo xamante ne des hectares et des hectares bay bisaab. boo gisee nee naan wa ñi luñ soxla li yëpp bay ko bisaab nii des hectares. Et il, il faisait, certes, ñu ngi doon permettre à ces jeunes-là de travailler. dans la zone les jeunes travaillent am na ñoo xam ne ñu ngi woon ci kii ñoom yor seen fas di béy. ñii aussi ñu ngi ci collecte bi. ci récolte bi je veux dire ils récoltaient les le bissap. ñii ñu ngi ko doon xolli femmes yi ñu ngi woon ci séchage bi ñu ngi def ci ay sachets. mais malheureusement on vendait ça aux entreprises étrangères te ñooñu bu ko yóbboo ñooñu ñoo koy transformé. indiwaat ko buñ ko transformé yow kiiw bi sa pressé yaa ko indee mais bouteille bi on te le vend à 1000 francs wala 1100 francs euh, Lipton bi nga xamantene ni lay tollu dans les séminaires on vend ça dans les hôtels à 2000 francs. à 2000 francs te ñom ñoo ñu koy jaay qui a perdu. non parce que <laughs> ñun ñoko ñun ñoko ko fi après euh, exporter ko. ñom ñu transformer ko indiwaatu ñu ñu koy jënd loolu pauvreté lay indi. ci léegi ki xaadim suñ sukkandikoo ci li nga xamante ne moom lañ doon waxtaan léegi muy la décentralisation. Mhm. nga gis ne dans beaucoup de régions aussi comme la région de Kaolack nga xamante mhm. ne Sonacos sanga fa Diourbel aussi. Mhm. ki Sonacos a nga fa. est-ce que gëmoo ne aussi population aussi suy suy màgg dafay am solo ñu décentraliser des industries. à travers ci gox yi nga xamante ne peut-être foofu la amoon. ak yi nga xamante ne mosu woon fa am. voilà comme population yi dafay màgg territoire bi aussi la croissance. dina évolue très rapidement. yaakaar naa lolu nonu aussi et na benn phénomène bi nga xamante ne na lu bari ndax je me rappelle en 2005. bi nga xamante ñun ñu ngi Kaolack. mooy bi ma leen béyee ndondol. Mhm. dem suñu Kaolack. Mhm. boobu noonu Sonacos euh, kii Lindiane. Mhm. ay angaar lu war a mat ay 15 angaar ñoom ñoo fay noor amoon naa benn cousin bu nga xamante ni moom ki chauffeur la woon su doon déchargé damay naan defaral salal te xam naa mi mhm. moom moom su gaaree balaa muy déchargé dina am un mois mhm. ndax tellement que mhm. oto yi koy jiitu moo bëri d'accord nga gis ni foofu boobu noonu kii coopérative mu ngi am ak yooyu noonu mais boobu noonu aussi li nga xamante ne peut-être moom mooy kii usine boobu mooy kii Sonacos permettre na aussi la population de de Sibassor wala boog de Kaolack de manière générale la région en tant que telle temps yooyu jeunes yooyu xamuñu Dakar ah effectivement ñun benn jeune moo moo doon jógee suñu code di ñëw Dakar su ñëwoon dañ koy seetaan <laughs> ndax kii tellement que ñun mhm. ñun yëpp mhm. ñu ngi woon foofu euh, kii jeunes yi mhm. concentré aussi ci usine bi di liggéey nga gis dëkk bi naat affaire yi vraiment le courant passe en tout cas kii ni très bien foofu noonu aussi est-ce que kii gisoon ne aussi am na am na lenteur wala am na mal organisation boo xamante ne. Mhm. autorité yi war nañ ci jàppatoo vraiment mu ñu mel ko avec la négligence. waaw effectivement loolu am na parce que boo xool presque structure yooyu ay Sonacos et cetera mën nañ ni maanaam tur bi rek moo fi nekk. Mhm. bien vrai que y a un travail qui se fait. Mhm. mais doxul ni mu war a doxee donc doxul nu mu war a doxee parce que bu doxoon vraiment dina doon loo xamante comme tu l'as si bien dit au lieu que jeunes yi di quitter di def exode nañ mën a toog foofu noonu ñu travailler dans ces dans ces dans ces entreprises là mais maanaam doxul à vrai dire donc maintenant où se trouve réellement le problème c'est ça la question mais ça ça ne marchait pas quand même ça ne marchait pas parce que vous vous vraiment côté par exemple le bassin arachidier la zone c'est vraiment un important travail pour nous permettre euh, à beaucoup de jeunes donc de pouvoir travailler dans ces entreprises là et aussi de participer à la création de richesses et également donc d'emplois au niveau donc de la zone et zone aussi donc comme tu l'as si bien dit aussi il est temps bon ñu délocaliser quand même certaines structures dans les régions parce que aussi ça va permettre donc euh, à ces jeunes là ñi nga zone non participer mais quand même le, travail fondamental qui qui doit se faire yakarna au niveau de chaque euh, zone euh, commune ba donc le mm. travail incombe à ces gens-là qui sont dans la commune. Dans la commune. Voilà, parce que le développement d'une localité, ça dépend de, de voilà, de, de, élus locaux. Ils nga le maire et son équipe municipale. ok ensuite il y' a aussi y' a des agences régionales de développement nga dans chaque région ils na fa soutenir aussi les collectivités locales. du côté financement du côté aspect technique aussi. Mhm. pour ñu mën projets donc euh, voilà donc même si bu on n'a pas délocalisé ces structures là. Mhm. ce qui est ce qui permettrait quand même de de lutter contre le chômage. parce que ñëpp mënuñu ñëw Dakar en fait. donc surtout. voilà et il y' a des ressources Dakar sax dafa jot nak, nag. Mhm. dafa jot nak ñu ñu fixal ko tuuti. <laughs> waaw ñun ñëpp ñu ñu xaw a suñu village yi. Mhm. xaw ko développer. Dakar aussi mën a et il y' a de il y' a de l' dans dans les villages. Hein? il y' a de l'emploi dans les villages. Hmm? n'importe quelle zone boo. je man man man man man kii bi comme ça peut-être eh, doxal Sénégal de village sinon dans mm-hmm. la campagne générale. Mm-hmm. mais ñun dañ ko fay effectivement dans la zone nord par exemple au niveau de Saint-Louis mm-hmm. la les terres sont là-bas. vraiment def maraîchage liggéey ci mais mais gis na ñoom gars yi dañuy quitter ñëw fi di kii alors que y' a y' a du boulot là-bas les terres y' a nous avons des terres l'eau est là donc lan mo des. mais est ce que ñun itam est ce que aussi mhm. est ce que itam à la limite dañuy naan est ce suñu bopp yi aussi nañ ndax wala suñu esprit aussi day day dox li gars yi ce que sa mayen day dox <laughs> ñu ne est ce yow li nga débbi moom nga fa bàyyi da nga fa bàyyi ba pare moom mhm. ah ñëw nag di ko seeti feneen ah effectivement alors que boo ko gëmee nga toog fa liggéey vraiment mën na la mën na mën na mën na mën na créer ay emploi yu bëri parce que agriculture moom je crois amul secteur bu ko gën a rentable c'est un secteur c'est un secteur rentable donc ku ko gëm mhm. nga tok fa liggéey vraiment da doon loo xamante voilà des des des générer valeur ajoutée mhm. mais côté bobu aussi état amna un rôle un rôle à jouer donc war na mën mhm. faciliter par exemple l'accès aux terres surtout l'accès aux terres ensuite aussi la subvention pour ci nan la koy ci nan la koy pour xol ni nga xamantene ndax fini aussi au Sénégal la réalité en est que yow su fekkente peut-être tay euh, étranger ngi fi yaa gën a am sens et avoir un accès par rapport à ce que nga mhm. que yow ko nga vraiment c'est un citoyen ça c'est un problème fondamental c'est un problème fondamental comme on le dit souvent. la terre moom sax doit appartenir à ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko dëkk ak aussi ñoo koy liggéey d'abord ndax soo demee ay dëkk comme Dubaï waaw tey pour yow nga jël benn table rek mhm. teg ko sa buntu kër il va mhm. falloir fi ñu ko teg noonu mhm. dañ koy mettre dañ koy mettre te dañ koy jënd cher en tout cas na doon kii nii sa buntu kër waaw loolu noonu gis nañ fii nii Sénégal fu la neex sànni sa table te yow cent francs parfois moom nga joxe juuti wala sa cinquante effectivement <laughs> ah, à la limite vraiment kii dañu nan en tout cas ñun ñoo appauvrir suñu bopp. Mhm, effectivement effectivement donc état li mu mën def dal moy soutenir euh, ñi nga xamanté te ñom ñoo am idée de projet pour créer pour euh, voilà dem ci def walu agriculture au niveau de cette zone là pour euh, ñom ñu am l'accès accès aux terres voilà parce que avant ñuy favoriser nak des entreprises étrangères ñom ñu xol ñi nga xam ne ñoo dëkk ci localité bi et puis aussi am bëgg-bëgg bi parce que mën nañ am bëgg-bëgg mais peut-être ils n'ont pas les moyens. Mhm. wala duñu xam wala duñu xam fuñu jaar wala duñu xam fuñu jaar très bien motax tax dañu soxla deux types de soutien un soutien technique. technique waaw pour Euh, et un soutien financier. soutien financier pour walu xaliss mi nga xam ne fan la permettre ñu ki ensuite aussi un soutien technique. pour ñu mëna xam parce que parce que mbër nga bëgg am projet bëgg a mais xamoo voilà maintenant là dans ce cas il y a des euh, des des entreprises aussi yo xamantene ñu ngi yëngu ci walu agriculture. peut-être euh, mën nañ apporter un soutien technique à ces gens-là donc qui qui sont dans la zone maintenant les rek ci l'organisation organisation lay parce que y a les organisations paysannes il y a les opérateurs économiques etc. etc donc bu ñep euh, liggéeyee sous forme li comme li ñu chaîne de valeur voilà entre paysans agriculteurs, commerçants etc. etc. le joxante loxo joxante loxo ça permettra au territoire d'aller de l'avant. merci beaucoup merci beaucoup c'était l'invité d'aujourd'hui l'invité de luxe Khadim Sen est vraiment un ingénieur en développement territorial mom lañ invité won fini émission Paco Et si un thème très important, l'entrepreneuriat, un tissu favorable face au chômage des jeunes, et nous donnons une solution, bi nga vraiment il y a suñ ko toppee bu boobaa li nga xamante Sénégal mu ñàkk et vraiment c'était un plaisir aujourd'hui vraiment Khadim partage avec yow li nga xamante qui moom plateau bi et aussi vraiment auditeurs et auditrices aussi yaakaar et non mais itam content na vraiment vous étiez à la hauteur mu doon nga xamante aussi vraiment lu am rek. et mhm. vraiment ñu lay naan lan ngay mm, voilà donc euh, di leen remercier Ibrahima. Mhm. ak euh, yow technicien di mhm. remercier waa kër aussi nga xam je crois c'est la deuxième fois ñuy accueillir et puis di leen wax ne à chaque fois que vous aurez besoin de nous nous sommes disponibles pour partager le peu de connaissances que nous avons dans dans le domaine voilà donc ma leen di di di leen gërëm bu di remercier di nuyu nuyuwaat aussi euh, waa Wokam fi ma jógee sama soxna di nuyu nuyuwaat waa Bambey waa Kourti waa Bari ñëpp euh, tous les villages environnants et aussi di ñaax jeunesse bi rek parce que peut-être am na ñoo xamante ne bëgg nañ mais xamuñu fan lañu war a jaar peut-être aussi am na ñoo xamante bëgg nañ mais amuñu courage bi peut-être aussi am na ñoo xamante ne bëgg nañ wala mais ñu ngi xalaat ay risques ak et cetera donc de dire à cette jeunesse là que ni bu kenn xaar état da ngay nekk si li nga nekk boo ci nekkee état ku ñëw jàppal jàppaleel la sax donc je crois bien que ni loolu mooy tax affaire yi dox donc euh, na ku ne xool li nga xamante ne moom nga bëgg nga bañ a xaar kenn bañ a xaar yenn moyens yi lépp li nga am nga dugal ko nga nekk si li nga nekk liggéey sa liggéey après nag ku ñëw fekk si la ñu xam ne aussi affaire wu entrepreneuriat c' un domaine très rentable c' un domaine très rentable comme on le dit souvent am na ñoo xam dañuy travailler ay salarié lañ mais même sa salaire salaire doyul man tu le dépenses après mu donc finalement tu ça devient un éternel recommencement pour éviter tout ça donc nagn ni investir investir y a ay risques mais donc un investisseur c'est quelqu'un qui prend des risques donc c'est à dire à la jeunesse donc ni ñom ñom nit ki créer sa propre ah. entreprise nit ki mo créer son emploi mais buñu xaar état donc nous ñi lancer wu donc yenn somme bi ñuy jël di ay émigration ay nangam je crois bien que suñ ko investirait dans un domaine porteur beaucoup de gëmee mhm. d'ici quelques années tu verras les retombées voilà donc je vous beaucoup. merci beaucoup merci beaucoup Khadim Sen, vraiment ingénieur en développement territorial Nous ne vraiment de wax auditeurs auditrices mais vraiment eh, nañ am nous bi nga le technicien bi nga nous remercier personnel bi nga et vraiment on toujours avec notre invité Inch'Allah. merci beaucoup.